di leen ndokkeel di leen firil benn xasiida boo xam ne ñépp war nañ ci bàyyi xel ñu mayeeko muy xasiida joo xam ne mboolem kuy taalibe Cheikh Ibrahim ak kudu taalibe Cheikh Ibrahim sax war ngaa fonk xasiida ji jàngkat yi di ko daaj ci ay daaj yu neex léeg-léeg waaye di wëy woo xam ne Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu lam waxoon rek lay firndeel wa bayni wa bayna almaadiina sharbaqun su suma diggante man Cheikh Ibrahima ak diggante ñiy tagg yenentu bi àll màndik moo ci dox waxuurun ak ay ay xàll ak i géej yoo xam ne dëgg-dëgg ak i montagne yoo xam ne xuus ko yombut ndax li tax mooy taggam ci yenentu bi nu mu fooree waxoon na ca wéyam wane la in sabaquni bil qaridi fa innani bi xubbi rasulillahi jiddu saqimi mu tekki na qaridi madihul aasimi wa man alib fa naadaahu bil mahmudi gis nga bim limee woykatu yonent bi kaabun wa adaanun wa najlu rawaatin wa yuusuf wal busayru ñii ñëpp mu lim leen daf ne buñ ma jiitoo ci tagg yonent bi it man xam naa ne sama mbëggeel tar na ci yenant bi tar goo xam ne lépp loo xam ne maa ngi koy woy rek yenant bi laa koy woy waaye tamit man su ma amee doom mu di góor sax ooye leen ko yenantu sallallahu alayhi wasallam xasiida ji di xasiida ju daw yaram bàyyi def garanti ci xasiida ji ne ku nekk ci ay jafe-jafe boo ko jàngee yàlla mën na la ci ay génnee mu def garanti ci xasiida ji ne ku feebar jàng ko tafli ko ci ndox sax boo ko naanee man ngay wér kon xasiida ji xasiida la joo xam ne ju jar jàng la léeg-léeg nga dégg tàggkat yi di ko wax naan matxu nabiy al mustafa yuxsika qurban wa safa fa huwa dalilu al فاق البرايا صرفا بدر الهدى بار الندى تب الورى سم العدا منع الشفا منع الرضا فصم التورا والصفا وهو حبيب المجتبى وهو الذي من قد حبى الحب أولى الإبا akrim bi ma asrafa wa huwa xabibun walqalil wa huwa almuhasabu aljamil wa faqruna faqrun jalil huna wa ana qad kafa lahu wasilatun tunaal wa li xayrin tustaal is kaana sayyidu rijal sallallahu alayhi wa sallam muy xasida ju daw yaram bàyyi ne madu nabiyil Mustafa tagg ki nga xam ne mooy yenent bi yàlla tànn ta mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuxsiika dana la may xurban ak jege yàlla wa safa dana la may ak sellu xol ak ruuxu ak lépp kon tagg yenent bi lum la mënta may amul mu ne fa huwa moom yenent bi nag dalilul muxtafa mooy tegtal buñ xeñtu bi xam nga yàlla ci alquran yonentu rek la yàlla may may gu toll ni fa ma ataakum rasulu faqusuhu wa ma naakum anhu fantaw yonentu bu diglee waruñoo xool ndax lim digle mbiram yàllaa nga ca wala nekkut ca ndax loraangee ca wala nangam ku dul yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu la digalee war ngaa seet ndigle la ndax nekk na ci ndigalal yàlla wala ndigalal yenentu nga jëfee bu mooyee ndigalal yàlla mooy ndigalal yenentu nga bàyyi ndax gannaaw yàlla suñu borom subhaanahu wa fooraayam ci alquran fépp fu mu waxee ne nañ ko jaamu te fonk ko waajur la ciy teg koon fonk na waajur wa qadaa rabbuka allaa ilaa iya wa bil walidaine ihsaan waaye nag wa in jaahadaaka ala an tusrika bi maa laysa laka bi ilm fala tutima kon waajur sax su la digalee dara loo xam ne mooy yàlla la bul ko topp kon garanti waajur ci toppam amul garanti bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am moo tax wax jim waxoon ne kenn du gëm ci yéen am daytalu ngëm ndara bu maa la gënal sa bopp gënal la sa alal gënal la sa njaboot gënal la sa lépp loolu rek mooy dëgg saxaaba yi kenn ku ne wax Seydina Omar ne ko man de yaa ma gënal lépp waaye nag gënaloo ma sama bopp mu ne ko kon yeggagoo àggagoo yow Omar mu dem ba mu yàgg mu ne ko Seydina Muhammad yaa ma gënal suma yaay suma baay yaa ma gënal alal ju ma mënta am yaa ma gënal suma bakkan bi yonent bi ne ko al aana yaa omar al aana yaa kon ndeke sirru boobu yàlla def ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko daraja boobu alquran ku ko njëkk a dëggal moom mu ne fa maa ataakum rasulu fa qusuuhu wa ma naakum anhu ak fantuhu lu mu leen digal def leen lu leen tere bàyyi leen li lay xamal ni it sirru booba yàlla ngi ciy di wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du bëgg lu lu yàlla du digle lu yàlla digle kon maxsuum la man ta digle mukk lu bon du ko def du ko wax ban firnde moo yàlla ne atiu waa wa atiu topp leen yàlla topp leen yonent bi su ma nee aaya boobu sax da nga wax ne wa ulil amri minkum waaye in tutiu tahtadu su ngeen toppee yonent bi gindeeku loolu yonent rek la ko yàlla may kum mënta doon li ngay wax dañuy seet waaye yonentu sallallahu wa sallam waxam amul lu ñuy seet moom bu waxee rek dañuy dal di jëf la mu wax bàyyi nag radiallahu anhu ne yenentu mooy dalilul muxtafa faaqal baraaya sharafa kawe na mbindeef yépp moom yenentu sallallahu alayhi wa sallam ci tedd nga badrul huda yenentu mooy weeru njub baharun nida yenentu mooy géej ak tabe ak a tabe woon te mën a maye tibbul waraa yenentu mooy doktoori mbindeef yi simmul idaa waaye yenentu mooy tookey noon yi minhu shafaa minhu radaa ci moom la ñuy amee ak sifaa waaye ci moom la ñuy amee ak alkande fa summun yenentu bi sax tooke la tawran léeg-léeg waaye nag wa shafa kon nga dégg ci ne wa tawran léeg-léeg nag shafa mu nekk luy saafara léeg-léeg yenentu nekk tooke boo xam ne kenn mënut laa saafara dee rek waaye léeg-léeg nga nekk ci ay feebar ak jafe-jafe yenentu ñoo taxawee taxawaaye shafa mooy safiyu ki lay saafara wa huwa al abibul mujtaba yenentu mooy soppe bi yàlla tànnal boppam al mujtaba mooy kiñ tànn wa huwa alladi mooy ki nga xam ne man qad xabaaul xubba aw laawul xibaa yàlla may na ko mbëggeel moom yonent bi waaye méngale na ko ay may yoo xam ne amul kenn kum ko may bàyyi waxoon na ne fa aayu jamii ruslin aayu muhammadin li yàlla may yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mayit ko kenn may na ko ba may ko dégg digle ak tere may na ko ba may ko topp kon desalu ko dara akrim bihi kon yow mi may déglu teralal yonentu sallallahu alayhi wa sallam maa asrafa kenn gën koo sell ci kaw suuf suwaat ko nga def ko ak nga ñàkk koo def moo fi nekk waaye ku gën a tedd yonent yàlla Muhammad amul kon bu benn waaye taxawee fële nga di màggal yonent bi di ko tagg moom mu ñëw ne la lii ngay tagg yonent bi bidaa la yow bul ko faale nekkal ci li nga nekk rek parce que boo teralee yonent bi yàlla teral na ko soo ko teralut yàlla teral na ko xoolal li alquran wax illa tansuruhu faqad nasarahu llah même su ngeen bañee ne du ngeen ko dimbale yàlla dimbale na ko waaye nag in ko yansurukum wa yusabbit aqdaamakum kon dimbale yàlla yéen seen dimbal ngeen ciy jëlee waaye bu ngeen bañee dimbale yàlla ci yonent bi mooy ngeen ànd ak yonent bi ndimbalal yàlla ngeen ciy amee waaye su ngeen ko bañee it yàlla dimbale na ko man yahdillah fala mudilla lahu ku yàlla gindi kenn mënu koo réeral kon yenentu sallallahu alayhi wa sallam kontur leen ko wax leen lu ne ci moom bu leen ko màggal bu leen ko tagg bu leen ko sellal bu leen wax dara ci moom du wàññi dara ci daraja yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wax leen ko ndax yéen ngeen amee ci daraja akrim bihi ma asrafa bàyyi mu ne wa huwa alxabibu yenentu mooy soppe bi wal xalilu te mooy xarit bi kanaa da nga déggoon ne xalil mooy ibrahim yan jikko la ibrahima méngoo woon ba yàlla noonu ko xalilullahi jikko yooyu yaa ngi ci bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu doon xalilullah waaye nag yenentu am na ay jikko yoo xam ne ibrahima am amut ko woon bañ dolli ci yenentu bi tuddee ko habibullah wa huwa yenentu mooy ku sell ku ku taaru ki wa mooy suñu ndam ñun ñun yenentu rek la ñuy puugaree waaye nag faqrun jalilun puugare gu mag la moom yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa tey bàyyi wa faqruna faqrun jalil huna wahana qad kafa allahu akbar yenentu fii ak fañ jëm doy na rek nga am mbëggeel ci sa xol bëgg yenentu sallallahu alayhi wa sallam waxuma sax nga julli ci moom doy na rek nga am mbëggeel ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam kafaaka faqran doy na la rek nga am mbëggeel ci yonentu mu sowe la waxuma laak nag koo xam ne am nga mbëggeel gi ba mu jaral la ngay togg ay ñam di jox ay nitam ci bisu juddum ngay dajale ay nit di la wax di waxtaane jikkoom ci bisu juddum ngay sonn di jël ay oto di luye juddum ngay jël alal ju bari di ko joxe ci bisu juddum ngir lan ngir mbëgg goo xam ne bëgg nga ko rek waaye kii bu amul dara ci yàlla kon kan mooy am dara ci yàlla wa faqruna faqrun jalilun huna wa ana qad kafa yenentu rek doy na lahu wasilatun tunaal gis nga wasila bi nga mën a amee ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya tustaa li xayrin dafay jomb keneen moo tax bàyyi mu ne huwa albaabu lil mawla wa laysa siwaahu yenent rek mooy bunt ci boromam ku dul moom rek soo jaaree ci moom doo yegg ci yonente sallallahu alayhi wasallam loolu li koy firndeel bu ñu demee ba yowmal xiyaam ñépp jaaxle daw dem ci aadama daw dem ci nuuhan daw dem ci ibrahim kuñ dem nga ne nafsi nafsi biñ yegsee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax ne ko sal tuta wasfah tusfah lak ay suñu waaji bàyyi ne iskaana sayidu rijal ndax yonentu mooy sangi góor ñépp wa huwa safiyul mustafa mooy ki sell kiñ tànn cay bàyyi su ko defee kon ñu taxawlu foofu eh, dañ ko continuer eh, dañ ko tënk rek ci fukki waxtu ak eh, fukki minute ak ñaar yooyu incha allahu rabbi yal na yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawféex ñu ngi ndokkeel waa Ansaaru Fayda yëpp di la ñaanal yàlla jàmm ak tawféex e, di fàttali rek comme li Cheikh Amadou wax dégg naa gars yi ñu ngi yëngatu waaye nañ yëngatu de wallahi e, mbiru yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam e, képp ku ci def dara yàlla dana la ko fay ba nga bég ndax li tax mooy lépp loo yaakaar rek mën na ci am Eh, te ci biir xasida ji danañ àgg ci xasida jox bayit yoo xam ne bàyyi dana ci wax kiy joxe ci bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ban yoon la ko ci yàlla dëxal kon yàlla defal ñu jàmm ak tawfiix salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu